asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 26 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu lamb la record wala yëglekaay bi nga xam ne nii moom moo di Leewtoo TV bu dee yëglekaay bi nga xam ne nag moo di sunu lamb la moom tey dafa xëy ñëw ci ki nga xam ne moo di Eumeu Sène Eumeu seen nag saison balance bi nga xam ne boo xool xoolee yëglekaay bi ne na parce que moom def na ko ak itam défaite bi nga xam ne Modou loo teg na ko ko mu ñàkk couronne roi des arènes ba moo tax nag kaay bi xëy tey samp laaj ak jógaatam daal la xëy samp di seen kaddu ka ca njëkk mooy xaadim ga jege xaadim moom jàpp na ne day Eumeu Sène wane na boppam bu baax a baax ci làmb jàpp na ne sax icône la ci làmb ndax nag la mu def ci làmb jafe na mbër def ko ak itam carrière bu guddam xam-xamu bëreem itam xaadim ga jege wax na ca ne na ndax li tax ma wax loolu nag la mu saf ka ko maj moo ko xam ne na moo ki nga xam ne moo di Eumeu Sène bokk nañu benn écrit daan contact lu baree bare baree bari moo tax mu jàpp ne day Eumeu seen moom ci mbirum làmb def na ci lu nekk amatul sax tey nag la mu jàpp mooy xëy na dese na ko ay bis yoo xam ne war na ko mën a bëriwaat ngir wane boppam keneen koo xam ne ñëw nañu laaj ko ci tam mu joxe ca xalaatam mooy lamin Seck ba ne ca Lutte TV lamin moom lena xam ne li mu xam ne daal ne na lenn rek la la jàpp na tey ëmm bokk na ci lu koy mën a yëkkati yëkkatiwaat wala boog loola su xalaat ko mooy a combat boo xam ne mooy dox ci digganteem ki nga xam ne mooy le gen di bawol mbooloo di Moustapha Tine waanam boog Tapha Tine lamin moo wax loola ne daal li am ba des moom bi mu mujjee dem këram séq moom ay wax ka mu gis mu ngi ci forme kon jàpp na ne daal fi mu ne moom li koy génnewaat fi mu ne wala mu jógaat taxaw bu baax a baax ne na mu jàmmarloog tafaatin rek ñu xool lu mu cay jëlee sawru faal itam wax na ca mel ni kon wax ji benn la ne daal ki nga xam ne moo di Eumeu Sène moom li leer ba leer moom pour mu jogaat jàpp na ne daal war na mën a nekk moom sawru faal wax na ko Aliou Ba itam wax na lu mel ni kii noonu Aliou Ba di ab manager di magi bàcc séras moom daal ne na Eumeu Sène sax tey ci làmb daa amatul lu ko nit naan prouver ko wala lii wala lee ndax jàpp na ne moom la ko waroon def na ko bu dee mën a bëri mu ngi ci moom ndam yu rëy itam am na ko ba mu doy sëg moo tax Aliou jàpp ne daal kon ëma moom fi mu nekk ni moom naan ko prouver li wala lee moom daa jàpp ne sax loolu moom amatul ci làmb tey maanaam daal fi mu nekk nii moom jàpp na ne Eumeu Sène amatul lenn loo xam ne ni tey war na ko mën a prouver ba tey dañuy konti yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb rek yëglikaay ba nag tey ka ñu xëy wan mooy la jatoo dans banlieue wala boog ki nga xam ne nii mooy la penseur di wàllu muy lag de Guiers mu mel ni ki nag moom fi mu nekk nii dafa jatu ni ab soccat taxaw ngir fas yéene jàmmarloo ak Gris Bordeaux nga xam ne mooy troisième tigre de fas wala Eumeu Sène l'homme de taille singa mu mel ni ki daal loolu ko ko xëy xam le mooy ko koy tàggat di Arona Sall ruun daal nee na ñaar ñii moom jàppal ñooy seen plan A ka njëkk nag mooy giri ñaareel ba mooy Eumeu ku ci ñëw ñu defante ak yow ba mu saf saf sap keneen koo xam ne moom defante nag ëmma ba mu saf defante giri ba mu saf sap mooy Balla Gaye numéro 2 la tax ñu wax ko nag dañuy dem ci record ka ca ñëw tey mooy Abu Ndour ci Balla la xëy tey xëyee ko xëy moo xam ne daal doy na ak waar abu daal la mu xëy xam le ci Balla la ko commencé le 2 janvier 2005 diggante ak Samba Law ba ba ni mu mujj bëre ak ki nga xam ne ni moo di Modou Lo ca la ba xëy tey ñëw mu mel ni ki nag Balla moom carrière ba la topp moom Abu Ndour Balla wane boppam bu baax a baax ci lamb ay ndam yoo xam ne daal boo bëggee dégg-dégg moom doy na mel ni ki nag juróom-ñetti at la def ci làmb dégg roi des arènes fi mu nekk nii boo xoolee yëglikaay bi na am na quinze ans ci carrière am waaye carrière ba riche na lool waaye carrière ba nag nee nañu daal wala Abou Ndour jàpp na ne kañ la ca Balla gën a dugg dëgg mooy 2010 la ko wane mooy jàkkaarloo ba mu jàkkaarloon ak Modou Lo di la 21 mars jóge ca teg ca Baboy Tyson ka nga xam ne moo di Yékini ba ci Tapha Tine nee na mu mel ni kon Balla daal mel ni fit gu mbër sànni muy raja xere dem waaye nag ka ko taxawloo mooy ka nga xam ne mooy doomi Mbour jë di Bombardier daan am ko ñu ne déet ne waay Balla ñëw jëlaat beneen defet ci Eumeu Sène dal di gàddaay ba mu gàddaayee nag dellusiwaat wanewaat boppam ci digganteem ak Gris ak itam ka nga xam ne moo di Modou Lo moo tax yëglikaay bi jàpp na ne Balla daal bu bëggee na lool lool waaye la ca doy waar mu seetluwaat ko ba tey jàppal ña nga xam ne bi daf leen tudde ay icône ci lamb ji moom ka nga xam ne nii moo di Tapha Gueye Modou Lo Tyson daal Balla Gaye moo ay ci ñoom dafa mel ni daal mooy seen bête noire fu mu leen fekk rek jëlee leen fa yëglikaay bi daal tey ci yaatoo yaatu jàppal vingt cinq combats vingt et un victoire quatre défaites loolu la yëglikaay bi nga xam ne moo di record wax tey ci gëstoob ka nga xam ne moo di Abou Ndour mu mel ni ki nag jàppal lamb jooja nga xam ne ca la ñuy wax moom daa mel ni fi mu nekk day am tiit wala na caa am ndax nag la ko waral daal Boubacar ñaa ci gëstoom ne na day leer ba leer rek boo bëggee dégg-dëgg daal daa mel ni covid 19 bii bu ñëwee ba jeex ramadan ba ñëw ne na bi moom fee saison ba ku yebu tiit ci de ndax nag fa muy mujje moo di Abou wala boog ka nga ne moo di Boubacar ñaa moo xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne yëglikaay bi xëy na caw wan ñu ko muy nees nees nag mu mel ni fi mu nekki daal ay entraînement moom da koo suspendre waaye keneen koo xam ne mu nga ca too TV di fa wax muy ka bu mbuur ba nekk ca Caroline du Nord ca États-Unis baso nag la muy ñaawlu daal muy li ci réew mi fan yi muy ay nit ñuy jàpp di leen door dóor yu méttee métti jàpp na daal loolu moom mën naa ñàkk nit ki xëy na wax ak moom mu def la nga wax su ko deful nag nga door koo wan la nga ko war a wan waaye jàpp na ne tamit ñoom nit ñooñu nañu responsable ci li ñuy def fonk institution yi fonk bu ñu diglee te dara ngir njëriñal réew mi ku ci nekk jéem koo topp basoka moo wax loola keneen koo xam ne moom mbër la xëy dégg ko ay loxo ne kaay nu bëre mooy doomu jàmbur ka mu def yéen nag du kenn ku dul la fu ma nga xam ne moo dëkk ca Pikine ginnaaw raay ki nga xam ne daal mooy moom am na xale boo xam ne xëy na tey def yo ko muy doomi jàmbur ne na ko yow mi nga xam ne yaay bàq sa bopp kaay nu laale bu nu laalee nga xam ne lépp dëgg la keneen koo xam ne ni moom ay laaleem ren jëlee gu ca lu neex a neex muy lan 2000 lit simple ba nga xam ne daal moom lay def boo xoole yëglikaay bi ne na boo xoole ñaari demi-finale daje mu jot a def daal cala yam te itam gañewut benn tournoi mu mel ni ki nag la ñuy wax tey wala ka ñuy souhaiter joyeux anniversaire mooy Awa Diop bu Balla Gaye numéro 2 Awa Diop bu groupe baax Awa Diop bu fans club Leewtoo TV Awa Diop ca Touba tey le jeudi 26 mars muy màggal anniversaire am ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla def mag magum l'islam te may ko borom kër bu baax moom Awa Diop ndax nag yaru na teey na nangu naa liggéey te loolu itam soxla nañ ko ci doomu aadama rawatina jigéen te ab taalibi la waaye corona bi yal na dem te bàyyi nu fi barke yonent bi sallallahu alayhi wa asalaamaaleykum mbokki internet ñuy suivre ci Leewtoo TV comme ni ngeen ko xamee nag seen revue de l'arène chaque jour du mën a ñàkk ak Leewtoo ak lu situation bi métti métti dañ fexe andil leen ko waaw gis ngeen tey ba tey rek comme ni ngeen gisoon décor bi ngeen gisoon dem moom ngeen gisaat tey maanaam kon ñu ngi suñu kër lu ko waral mooy coronavirus ñu ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla jële barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais tey balaa ñuy sori dañuy souhaité koo xam ne suñu rakk la suñu jigéen la suñu xarit la di fête tey anniversaire am di le 26 mars muy soxna Awa Diop ca Touba Mbacké di soppe soppi nit ñu baree baree bare rawatina waa groupe baax ak waa fans club Leewtoo TV ak Babacar kon Awa Diop happy birthday to you dundal lu bare baree bari yàlla yokk fan wi guddal cër yi te may la borom kër bu baax li ma jaaxal nag Balla Gaye de noonu na daf ma lay may mais Balla boobu ba tey waxaatul lu ci jëm xaw ma nag Balla lu xew wala looy déglu boog mais lu mën a xew daal maa ngi lay ñaanal jàll jàmm di ko ñaanal képp ku ñuy suivre waa di wax ne tamit xam nga tey comme ni ngeen ko xamee rek journalité xëy na ñëw ci làmb comme ni ñu koy defee du mën a ñàkk sunu làmb moom Eumeu Sène la xëyee ça veut dire que waaw Eumeu Sène nag li mu xëyee mooy nee na daal Eumeu seen boo xam ne nii ah naka lay def ba jugaat do parce que roi des arènes boo xam ne la ñàkk na roi am ci Modou Lo tey année blanche daa mel mu ngi koy yoot yëglikaay bi laaj fu muy jaar pour jugaat mel ni Sawru Fall joxe na ca kàddoom xaarim nga jege Lamine Seck sama rak Lit TV sama xarit ñoom ñëpp ku ci ne joxe nga kàddoom ak Aliou Ba di ab entraîneur di manager nekk ca Pikine mel ni kon loolu daal defe na ñoom li ñu wax moo ci nekk rek Eumeu Sène jógaatam moom ci làmb defe naa ne du lu war a mën a jafe bu ko fekkente ne gis na promoteur bu ko tëgg te mu pare ngir bëre ndax yaakaar naa ne comme li lamin wax nag dafa nekk lu am solo kan digganteem ak Tapha waaw loolu moom defe naa ne lamb la joo xam ne war na mën a am lamb ju warul mën a ñàkk la diggante la diggante Eumeu Sène ak Tapha Tine ndax lii xam ne tamit moom la ki nga ne moom la Khadim Gadiaga wax mooy lii nag Eumeu Sène tey ci lamb moom amatul lu ko nit naan ko non non non parce lépp lu mu waroon def def na ko champion d'Afrique ci xale ñëw tey am ay ndam yoo xam ne nii daan mbër moo xam ne tey ñaari yoon mbër moo xam ne mbër mu jafe daan la si lamb muy Balla Gaye 2 loolu naa dafa doy ci ñu ne la yow un grand champion nga kon Eumeu Sène muy prouver waaye duñ ca yem ndax loolu bi mu amee itam a ah, dañuy sampaar ab laaj Arouna Sall xëy tey ne daal seen plat à Gris Bordeaux ak Eumeu Sène mu mel ni kon moom Gris Bordeaux nag defe naa nit ñi bëgg nañ ko waaw boobu moom ma jànq la waaye leeralu giri wala wala combat wu Lac ak Eumeu tamit troisième combat ñi bëgg nañ ko ndax Eumeu daan na ko benn yoon ñu benn yoon kon defe naa lu tamit war na mën a ne làmb la waaye buñ ci jógee dañuy dem record record itam tey dafa xëy ñëwaat ci Balla Gaye numéro 2 wala boog dafa xëy ñëw ci moom ak gëstu Abou Ndour mel ni kon parcours ba la topp le 2 janvier ba tey ah bi mu mujj bëree ci mois de janvier diggante mu Modou ndam ya mu am ak parcours bi ñoom Tafa Gueye ak ñoom Modou Lo ay euh, bari na Yékini ñoo xam ne ku ci ne Balla Gaye de daan na la ci façon bu doy waar ba ci ñoom Tyson mel ni ah, gis nañ ko tey ñu ngi koy wax mu mel ni kon moom itam roi des scènes ba ca Parcelles Assainies daal ci li ñu yëglikaay bi wax daa mel ni moom arbitre yi ñu raje nii wala ñu dàq leen moom daa mel ni daal ñoom la àndal ndax jàpp ne moom daal xalaatam loolu daa mel noonu la ko gisee daal waaw daa mel ni daal loola àndut ca dogal boobu ba nga xam ne moom la jël dàq ay arbitre ñu del na ajakar raje mel ni kan tamit ci xali gëstoo Boubacar Niang ah lamb ji di ak jaaxle war na cee mën am parce que nag nee na daal fi mu nekk nii ni mu demee nii ah Covid 19 bi ñëw na weeru koor gi après dina ñëw ndax saison bi mu gën a neex loolu ah jar na bàyyi xel jar naa wax itam waa ñu koy nuyu Boubacar ñaar ca sunu làmb waa di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñuy suivre mel ni kon daal tey loolu mooy li nga xam ne moo fi ñëwoon ci yëglekaay yi. yaa ngi dégg ñuy ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci ñëpp mais nag du mën a ñàkk tamit ñu gën a waxaat ak suñu bopp wax ak euh, sénégalais yi mais Bazooka tamit gis nañ ko ci Leewtoo TV moom tamit wax na fa waaw wax na fa lu am am solo jëmale ko ci sénégalais seen digganteeg sunum réew ak police beeg mel ni kon foofu ci la jaare tamit ñaaxaat suñu bopp mais ñaax takk der yi ndax li may wax rek ñun ak takk der yi ñoo dëkk ñoo bokk lépp yaa ngi dégg lu mu mën a doon rek ñun ak ñoom ñoo ko bokk tey feebar moo am ci àddina bi ba tax tey suñu président de la république monsieur Macky Sall jël togal que ni couvre-feu vingt heures nag ku ne dugg sa kër ñu toog ngir lan moytu defe naa nag ku leen a sangul sa taar la la bëggal kon defe naa ne war nañoo fonk loolu ñun sénégalais yi waaye des fois ma gis loo xam ne nii war na mën a ñàkk xam nga ñaawalante bi dàqanteeg ay policiers ragaluñu police est-ce que loolu lañ war a taxawee ñun en tant que ay jeunes Sénégal yaakaaruma ne noonu la war a demee nañu respecté suñu réew respecté suñu ay institution respecté suñu ay takku déru réew defe naa foofu lañu war a taxawee et puis tamit pour man si loolu lañ xaar mais man ba ci koñ bi ma dëkk bi gis naa ñoo xam ne bi ma sëppoo leen xool ñu ngi mel ne ñuy euh, xam nga ñaawalanteeg force de l'ordre yi yooyu mën nañ ñàkk ay sénégalais lañu ay jeunes lañu ëllëgu réew mi ci sunu loxo lay mujj ji kon ngir yàlla ak yonentam ba nañu wane la bon exemple waaye ñoom takk der yi tamit waaw dóor bi xëy na euh, nit bu dëgëree bopp xëy na may na koo baaj baajal ngir mu jubanti waaye nag gaañe bi amu ci njariñ parce tamit dañ leen a wax pour que ngeen ñëw tegaat ñi wàcc yoon ci yoon waaye est-ce que dóor rek rek mooy nekk solution yaakaaruma ko wax dina am ci di nit da a war a wax ba pare ba xam lan mooy intention xëy na bu téyee nag nga doog a a jaar ak moom si weneenu yoon parce que dóor euh, mën na jur bakkan bu faatu mën na jur leneen te yooyu yëpp mën na ñàkk mais encore une fois tamit ñun nañu gën a nekkaat ay patriote di nuyu ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ma lay mën a fàtte Aïssa Faye madame ñaa maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax waaw démb ndeysaan xam nga wéetal na ma Ndey Kumba Fall naar bi maa ngi lay bëggee ñoom Asi Diagne Mauritanie di nuyu képp koo xam ne ñu ngi si tuuti yaay Sarr